xam nga àddina toll nañ foo xam ne tey yeesal mooy tax mbir yi gën a gaaw mooy tax liggéey yiy dugg mën a bar moo tax mboolem loo xam ne war nañ ko def ñuy wut ay xarala wala ay gis gisin yu bees yoo xam ne bu ci jaaree rek fekkee ne dañ doon dox vingt kilomètres à l'heure dana mën a àgg cinquante cent kilomètres à l'heure ci liñ mën ci dox loolu nag yeesal bi li mu tekki mooy ba ñu saytoo mbir yi dañu gis ne nag ñeent kese la xam nga tey tudd nañ ko léegi ci fas yi waaye itam walaabal na ci nag ak xar ak lépp yeesal mooy fexe ba nga xam ne jur gi am lu nu dunde ci anam boo xam ne xëy na dana gën a mën a mucc ay dana gën a mën a gaaw ndax kat wax ngeen ko léegi mala ak nit ñoo yem ku ci dundul lañuy ñuy séentu ci yow mënuñ koo am loolu moo tax ngeen dégg ñuy tënk ay programme yoo xam ne dañ ci jublu pour fexe jur gi am lu mu lekk soxna si wax na léegi maral falfa gàncax la xam ne jur gi daf koo soxla pour li ñuy séentu ci ñoom ndawal mu gën a mën a yemb li ñuy séentu ci ñoom ci meew également mu mën a yemb loola ñu nga ca wax na ci benn pàcc léegi ñaareel bi daanaka mooy li nga xam ne moo ñu ëmb fii tamit loolu tamit ni mu amee solo ci nit ñi noonu la amee solo ci mala yi muy lan muy feebar yi nga xam ne dafay gàllankoor jur gi ndax jur gi feebar bu fekkee ne dab na ko lañuy ñuy ci moom ci ndawal at ci meew duñ ko mën am ci moom bu fekkee ni jur goo xam ne dañ koy jëfandikoo di liggéey comme fas yi ak mbaam yi tamit bu fekkee ne feebar dab na leen lañuy ñuy séentu ñoom ala kulli xaal nuñ koo am looloo am tax tey ñu def lii nga xam ne tey moo ñu indi ci Touba fexe ba nga xam ne jur gi nga xam ne wàllu fas ak wàllu mbaam am taxawaay boo xam ne ministère de l'élevage ci dugal loxoom loolu ñu koy soxla muy activité de transport mu mën a matal ñetteel bi mooy li nga xam ne ñu ngi koy tuddee amélioration génétique mboolem foo xam ne am nga mala mala nekk na fa ñu seet kattan gi nga xam ne mala googu am na ñu mën koo ful maanaam jaxasa ay deret ci kaw la ci juddu ci ay mala gën a man a am kattan ci indi yàpp indi meew wala également mën na transport. looloo tax aaraam bii ngeen xam ne samp nañ ko mbàkke ñu jagleel ko fas yi ñu ci yóbbu fas yi nga xam ne mooy euh, euh, fas yu jigéen yi euh, ñu leen mën en tout cas tàggat leen seet leen am luñ def ci ñoom ba li nga xam ne fas yi fay mën a jóge gën a mën a am kattan gën a mën a taxawee transport bi nga xam ne moom am na solo lool fii ci Touba. ñeenteel bi mooy xam nga loolu lépp buñ koo xalaatee war cee dugal ay xarala yu bees ñu mën koo mën a ful ñu jox ko puissance comme niñ ko waxee ci élevage loolu nag ay nit ñoo ko mën a defar nit ñooñu nag war nañ seet tàggat leen war nañ seet boole leen ñu lëkkaloo ci ay kuréel yoo xam ne comme ni ko monsieur le maire heureusement fii ci Touba am na avancement wax na ko tey charité yi bu soxla fekk benn loolu am nañ ay kuréel yoo xam ne nas nañ ko bokk ci ba nga xam ne tey bu soxla bu ci waxee fukki nit daanaka ñëpp information bi mu bëgg a matal dana àgg loolu boo ko may tey ñu mu wax ko nii léegi donc macha allah tey loolu am na ci biir Touba lii nag bu ngeen gisee ñu def ko fii ci Touba dañoo jàpp euh, transport la te transport ci wàllu koom kom dañuy wax né activité de soutien la monsieur le maire wax na ko sax transport dafa transversal dafa tudd dafay laaj secteur yu bari kay dem hôpital di toppatoo wér-gu-yaram mais ci moyen de transport lay yéeg pour dem ka nga xam ne tey ma nga nekk ci commerce di def affaire koom tey la muy transporter ay ay marchandises saret yi dañ cee am wàll ka nga xam ne ma ngi ca bâtiment ya di transporter ciment wala matériel am saret yaa nga ci mënuloo yëkkati lenn tey ci biir Touba loo xam ne charrette defu ci nekku ca nekk activité de soutien pour loola nga xam ne mooy activité principal bi mën a matale donc loolu am na solo trop moo tax tey bi may ñëw. ci bagage yi ma ànd ak indi naa ci ay ñàkk yoo xam ne bu ñu ko évaluer tey mi ngi toll ci juróomi millions yoo xam ne dañ koy ñëw jox ko gratuitement ñi nga xam ne ñoo saret yi donc ñàkk yi ñuy ñoom saret xam nañ ko feebar bu garaaw la yor la lay fàcc te tey buñ demee ci médecine ci ñi nga xam ne ñoo di bind di fayeku daanaka dana jaar 5 millions tey dañ ko indi pour muy ndimbal loo xam ne président de la république moo ñu wax ñu def ko bërkaati démb conseil des ministres mi ngi naan ma mbaa fàtte woo sa activité Touba bi nga xam ne na nga koy faaju mën a ko mbokk mënuma koo fàtte donc ndax parce que li ñu fi indi ci ndigalam lañ ko indi muy loo xam ne toll na ci 5 millions yoo xam ne ci budget ministère de l'élevage la ko jukee ne naa ko ñëw jagleel ko ñi nga xam ne ñooy yëngatu transports, transport hippomobile fii ci Touba ñu indi leen ko monsieur le maire jox leen gratuitement ñak leen ci fi ak ñetti muy di samedi di dimanche.